5M TV Sénégal mbokk yi siifur 5M TV Sénégal dal leen ak jàmm ci xibaar Pape Mouhamadou Seck ñu tegoon ko loxo ba senegal yi bari jàpp ne sax dafa dee ci prison boobe ay mbokkam di ko naqarlu ba génnoon sax di wax ne leen jox koor bi ñu mën koo denc Sénégal yi bëri nag jàppoon ne moom mii di Pape Mahamadou Seck dafa daal di dee ci prison bi loole lépp nag lenn nekku ca dëgg moom mii di Pape Mahamadou Seck dafa daal di rëcci ba instant bi sax teg nañ ko loxo. leneen lu bees ci xibaar yi ginnaaw ab tukkib nemmeeku ba Serigne Mountakha Bassirou Mbacké amal ginnaaw ba mu jógee ca Tivaouane dem fële ca France niki démb ci samedi ji 23 juillet 2022 la ñibbisi ci Touba. beneen ab xibaar ñeel Serigne Modou Lo Ngabou Serigne nag fan yi nag amoon na ay coow yi amoon ci digganteem ak ay ak ay soxna ay audio ak ay vidéo génnoon ci internet bi ñëpp di ko gis mu nekkoon loo xam ne nag ñëpp ñu ko doon ñaawlu waaye nag tey gis naan benn discours bu def ah, di wax ne mu ngi wax ne eh, tey jii la gën a mën a liggéeyal Serigne Touba di wax ne daal ñëpp ñi nga xam ne daal dañ ko wax wax ci ñaaw jéggal na leen lépp loo xam ne daal dañ ko jëmee ci ab deram daal ñu ngi koy jéggal euh, di wax na nag tey jii daal la gën a mën a liggéeyal euh, Cheikh Ahmadou Bamba ndi koy démb ci samedi ji 23 euh, juillet 2022 Ousmane Sonko ñëw Touba nag waa Touba tertu ko tertu bu rafet góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp génn di wane seen mbégte ci li ñu gis Ousmane Sonko Ousmane Sonko nag àndoon nag Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké ak Serigne seex Thioro Mbacké Serigne Cheikh Thioro nag nekkal fa fii ci Touba ñoom ñoo àndoon aw ci mbedd jumaay tubaay jaar corniche daara jolof jàkkay sëriñ may yaay ba playa ba fi nga xam ne moo di garasu daaru jëm mbaar ya premier garas romb ko jëm corniche sëriñ Seex ba garasu Dakar niki noonu ñi jaar route daaru minan te di daaru minan bi nag côté kër sëriñ Muntaxa Mbàkke Euh, moom nag euh, Ousmane Sonko fa la jógee dem fa la ca Sadio jaar Taïf euh, bu mu dappaatee nag ca demee Mbàkke def fa discours bu am solo lool loolu nag la ñu gisoon démb mu xewoon Touba. kon mbokk yi jox leen dig daje beneen incha allah ci 5M Sénégal jaa ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak 5M TV Sénégal ngeen wéy di abonné partage vidéo yi jaa ngeen jëf. 5M TV